di tegandoo di dóorandoo waaw ñun ñu dem ba gis ne au que ñun ñu beru fële di di di xool ñoom ñu nekk fi ñun nañ leen fekk si surtout tur wi dafa ne julliti Sénégal yëpp waa jullit yi ci nëbb sax ku nekk fa nga féete donc loolu mooy ñu xëcc ñu ne nañu jàpp nañu loolu mooy dooleel euh, euh, mbir mi parce que kat teqaliko bi am ci weer Sénégal rek la xewee teg ñëpp dañ ko naqarlu koo laaj fu mu mën a féete lii neexu muy ñi nekk ci diina muy ñi nekk ci nguur muy ñi féetewul fen kon bépp jéego bu ñuy def ngir rek benn le séentu weer foog ñu àgg foofu ci la senegaal di mën a julleendoo di warandoo mooy ñëpp daje ci benn ët ëtt séentoondoo bu ñu gisul ñu mottali bu ñu gisee ñu daal di ñu daal di tàmbali loolu it mooy charia ku dellu ci texte yi loolu ngay gis. mbooloo bi au weer bi lu rëy sax parce que l'islam loolu la santaane lislaam xam nga sax dina xaw a juunu euh, julli jot ñu ne julliti Sénégal julli nañu tey mouvement Alfala julli na suba dont kon ku nekk fu mu sukkandiku lu wér la mais lii moo gën a rafet moo gën a jekk moo gën a neex euh, dégg ci nopp loolu moo tax ñu ne nañu xoolandoo. ñu gisandoo ñu tàmbalandoo ñu jeexalandoo moo gën a rafet ci image u l'islam eh, ñu ngi ñaan yàlla réew ay jéego am moo ñuy àggale foofu mais ku nekk bu naqarloo wuute bi nga des fi nga des eh, du faju mukk waaw damay woo ñëpp parce que eh, fii couleur couleuruwul benn kuréel dañoo ne jullitu Sénégal te ñoom fi ñu sukkandiku mooy alquran ak sunna am na yeneen kuréeli sunna ñoo xam ne ñu ngi séentu ñoom it alquran ak sunna lañu sukkandikoo am na ñu féete feneen ku nekk mi ngi naan maa ngi ci alquran ak sunna kon jot na ñu ñu ànd nag parce que charia bi ñëpp ko bokk de ba charia bi yàlla yonent bi comme ni ko imaam maam Gora waxee ñëpp a ko bokk kon nag jot nañu dem ci ëtt boobu parce que loolu mbiru charia du mbiru yeneen yi kon nag mi ngi noonu loolu mooy jëriñ li njëriñ li mooy loolu voilà wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ah amin amin man eh, sunu kongar bi bis bis eh, kii no amiru daaw waaw eh, macha allah comme na ko sunu papa oustaz Ibrahima Kane di amiru daaw xarakatul falaax Euh, mu nekk nag lu am solo lu lu rafet tamit ci xol mooy xarakatul falaax ñëpp xam nañ ko ci addaawa ilal kitaabi wa sunna daal di fondre commission lunaire am ci biir commission euh, coordination des musulmans du Sénégal loolu nag vraiment euh, képp ku bëgg sunna rek day neex sa xol. kon nag ab leçon bu ñu al al falaax joxati la waa ab leçon bu ñu joxati la kon mbokk ñu ngi leen di dig daje ci koor gi incha allah ci dégg diine ci ay conférence ak ay dars. Eh, bi nga xamante ne mooy sunu programme phare ci koor gi muy ànd ak Oustaz Mor Kébé ci iraasatul lahfan min makaayidi shaytaan bu Ibnul Qayyim rahimahullah Oustaz di ñu ko jox ay dars chaque jour eh, avant ndogu di jot ci dégg diine nga mën ko topp ci dégg diine ci chaîne YouTube bi ci Telegram bi ak sunu groupe WhatsApp yi képp ku bëgg a bokk ci groupe WhatsApp yooyu mën nga woote ci numéro man nga yónnee sa message ci numéro ci numéro bi 77 494 08 08 ñu dugal la ci groupe yi wala 78 514 78 38 kon incha allahu taala ginnaaw suba alxamis mooy nekk fan bu njëkk ci weeru koor euh, ramadan 1441 di ramadan 2023 ñu ñaan yàlla mu fekk lu ñu ak jàmm ñu woor ko mu nangul ñu ko lépp lu mu ci déglu ci baax mu may ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu